Parce que vraiment, quand je t'ai vu hier, je me suis dit, mais, ce mec-là, il prend les Sénégalais pour des imbéciles. 26 morts, mon gars, 26 qui ont été tués. Il y a trois policiers, qui, il y a un policier, vous, devez avoir peur en fait. Il y a une c'est une police, c'est une bire. ba ñetti policier di ci dee xaw ma ñeent amul enquête yéen une biir yéen kon war ngeen a tiit yéen seen biir laa la wax yéen war ngeen ne bool demee ba ay seen seen collègue policier di dee vous yéen wàccewu leen sax drapeau bernewu leen sax drapeau pour ñooñu amul amul autopsie amul enquête amul dara yéen yéen seen biir yéen ku fi toog 2024 na commencé foofu ba pare ñan ñoo rey xale yi ñan ñoo leen rey <laughs> ah man man gis nga man nee la xoolal man ñu xoolal yàlla ngeen jéggal ma ngeen baal de mais man ñu jàpp ñu jàpp ñiy rey sax moo ma gën a sax ñu waaye loolu lu ma ko wax sax ñu far keneen ak keneen xam naa du ma ko waxee ngeen mer te pourtant moom laa la mais xam ngeen rey nu mu toll est-ce que xam ngeen boo leen bàyyee ay reykat ñu dugg biir Sénégal xam nga ne kenn du nekk ci jàmm bu boobaa ku nekkee dem jënd pistolet dugal si biir ñu mel ne Amérique nit bu ne ne hee da ngay tiit sax da ngay tourner tiire ko ndax tiit Sénégal musta am loolu. 26 personnes ñoo dé man dama bëgg ngeen concentré wu ci loolu ba paré barki Serigne fallu Mbacke loolu la bëgg ñi dé Sénégal su fekkee ne ay jullit lañu nañu installé peine de mort loolu la yàlla santaane yàlla dafa ne ku rey ñu rey la waaye yéen xanaa gëmatuñu yàlla bu ñu gëmee yàlla nañu def li barki Serigne fallu bu dee ku rey ñu rey la rey jeex. Arabie Saoudite ñu ngi nële Makka al mukarama boo fa rey nit ñu rey la lu tax Makka boo fa tegee seef duñ ko sàcc parce que boo sàccul dagg sa loxo boo rey nit ñu rey la mais muy dëgg 26 personnes dee ministre bi taxaw mel na dara amul Sénégal démb ma dégg mu koy wax dama jommi sax assemblée nationale mel ni meeting nga gis ay drame yi toog foofu barke Serigne Fallou Mbacke dama leen wax benn affaire billahi wallahi gis nga maire yi toog foofu noonu ànd ak gis nga yeen yeen yalla bu ngeen bég yalla na len conn top bu ngeen dugg ci bir suuf ay yeen ak seen njabot parce que sonal ngeen nit ñi meeru seytane nga xam deureum dërëm amu leen ko wa ba jibe yi 10000 mille lañ leen jox 15000 200000 ngeen melna ay yeen da ngeen top ci Macky Sall di and ak mom mu leen jox wéccat ngeen bay 5 ponkol seen bir kër yo xam ni nii mënoon nañ leen jariñ cinq ponkal yoy bu ci benn réussir woon baa ñaar kër gi nat mais yeen na ngeen di bàyyi ay ponkal seen biir kër mag yi toll na yeen mën a jur ay doom yu mag ñàkk fayda takk seen digg yi dem fee ñu leen di jox weccet ngeen koy jël riba ngeen di lekk xaalisu mbolo ngeen di lekk li ngeen di lekk baaxul ay feni nen la yéen maire yéen ñu sonal yéen sonal boy yi loolu da ko wax te dee yéen yéen a comprendre dara yéen ba ngeen joxe seen bopp doon ay jaam di dungu ay nit dafa yàgg esprit boobu nag moo fi jeex on est en deux mille vingt trois il faut ngeen may seen doom yi ñu nooy tuuti ngir yàlla war suñu xool leen seen doom yi ni ñuy dee maire ak pax yi xool leen seen doom yi ñu ngi dee ngir bëgg seen liberté yéen ngeen topp ci gannaaw Macky Sall wii wii wiiw ndax xaalis bi ngeen jox waaye sonnal ngeen ñu waaye sonnal ngeen ñu waaye ngir yàlla war suul yi dimbal leen ñu xamu leen dara demu leen fenn jàngu leen dara waxumaa ñëpp nag de waxumaa ñëpp mais may leen xale yi ñu noyyi ay eh waaye mag ñi may leen xale yi ñu noyyi vingt mille francs dix mille francs yi ñu leen di jox nii ngeen di bëgg rey nit ñu topp nit ñi wéew Macky Sall wéew rey wala yéen ñi ànd ak moom xam leen ko yéen maire yi yéen ñi ànd ak Macky Sall laa la wax nii yéen xanaa gisul ñii dee gis nañ Ousmane sunk mi ñu topp subaak ngoon di ko dóor ay lacrymogène amuñu arrêt mandat amuñu dara dañ koo topp rek justice boobu la ñuy wax ne ñu ne am na loi vous vous vous vous nous prenez pour des man yen, man ñu vous faites vos conneries ba pare ngeen jàppe ñu ay de nit du ko de la chromosome di dugg ci bir nit ñi kër nit ñi barke Serigne vidéo bu ñepp gëné vidéo ngeen di ci gi sax koy ñu koy gis ay ci hôpital ay dispensaire ay école